dël leen ak jàmm mbokki internet yi nga xamante ne bii yéen a nuy siifut ci xibaar ginnaaw bi leen nuyoo siyaar leen parti bi nga xamante ne bii mooy wuyoo ci turu bis du ñàkk bis du ñàkk di parti Serigne euh, Mansour si Djamil ñoom nag ginnaaw bi nga xamante ne bii retiré wu woon na ci fan yi ci ginnaaw ci Yewwi Askan Wi di coalition bu mag boobu nga xamante ne bii lëkkale na mbooloo mu bëree bëree bëri ñoom nag euh, ginnaaw bi nga xam waxoon na ne gisuñu seen bopp ci liste député yi ba tax wu woon tey nag nañ ci ay xibaar ne moom bés du ñàkk di parti Serigne Mansour Sy Djamil euh, nee na dem na ànd jeeg ki nga xamante ne bii mooy njiitu réew mi di président Macky Sall ngir nee nañ kat ñoom foofa noonu. fa la liggéeyal Sénégal nekk waaye foofa noonu it fa lañ gën a gisee xëy na seen bopp ci li nga xamante ne bii mooy yeewee askan wi nga xamante ne àndoon ak ñoom ngir bëggoon a liggéey réew mii di réewum Sénégal loolu nag mooy li nga xamante ne bii moo tukkee ci waa bis du ñàkk di parti ki nga xamante ne mooy Serigne Mansour Sy jëmil di kilifa diine fële ci Tivaouane